jërë ngeen jëf c'est spectateur Baol TV bu ngeen gisee jotaay bu jekk bi yooyu ndaw seq ko ngeen xamante ni Diourbel moo xewle tey ñu ñëw ci remise de drapeau bi nga xamante ni ñu ngi ko war a jox Ndiaw Macodou waa Diourbel production tëgg ko Jal Confiance di promoteur bi ñu ànd ceeg nga xamante ni le coordonnateur des jeunes fii ci région de Diourbel asi boo gisee délégation bi ni mu toll nga xamante ne ñii mooy équipe bi nga xamante ni ñooy liggéey ki nga xamante ne mooy doomu Diourbel bi nga xamante ne moo sagal Diourbel jàppale waa Diourbel muy Pape Modou Fall kat bala ñuy gën a yàggal rek dañ koy jox mu wax impression bi nga xamante ne nii am nañ ko ci drapeau bi nga xam ne jox nañ ko seen frère seen xarit njaw ma koddu ak aussi nan lañ jàppee bés bi ak aussi nan la ñuy waajale bés bi la kat drapeau bu mag boobu di jox ci diggante ki nga xamante ne mooy Zarko bu Soweto ak Paul Maurice bu xajil muy làmb ju mag a mag boo xamante ne képp ku fa ñëw di nga gis bëre di nga gis ndax nag ndaw yi ñoom ñoo xewle kon euh, dañ lay jox kàddu gi nga nuyoog mbokk téléspectateurs wax ñu sa impression ak li nga xamante ne moom nga sentir si bés. asalaamaaleykum waa Diourbel Euh, salaamaaleykum waa Sénégal euh, maa ngi wuyo mbay ñaa nekk coordonnateur national euh, des jeunes du parti rassemblement pour la vérité dëgg ma wóor suñu jotaay tey yaakaar naa li ko waral mooy remise de drapeau ci événement bu mag bi ñu jëm la 4 décembre waa Bawol production tëgg ko wax dëgg yàlla dara jaaleel ko suñu jeune frère suñu rakk suñu xarit suñu lépp njaw ma ko Njaay Euh, ñu jëm ci bis boobu muy la 4 décembre au stade Elimanel Fall muy làmb ju mag jël aussi le grand combat donc jox ko ko euh, jox googu nag yaakaar naa li ko waral ñëpp xam nañ ko parce que Ndiaw nekk euh, un jeune travayeur wax dëggal nekk koo xam te ni ku ñëpp xam la actuellement à Diourbel ngir ni mu déterminé woo ni mu engagé woo ci liggéey bi. yoo xam da ko ànd ak son grand frère le président Pape Modou Fall directeur de l'emploi liggéey bu am solo bi nga xam te ne ñu ngi koy def Diourbel depuis des années te ñu gën cee ràññeeku ci jamono yi ñu nekk kon yaakaar naa waa Baol production bu ñu yëkkatee drapeau boobu di grand combat bi donc euh, jox ko Njaw Njaay euh, moom aussi wax dëgg yàlla ak euh, ànd bu rafet bi ñuy ànd jiwoo gi nekk suñu biir amuñu benn xaar ma yàlla amuñu benn problème luy problème mu kii mooy problème mu donc mu newaat da koy jël honneur bi tegaat ko ci sama loxo waaw donc mu nekk vraiment luñ kontaan euh, loo xam te ni xaj na bu ko defee defewutoon noonu it ñun noonu lañ ko jàppee voilà mais nag euh, ci ni mu gën a rafete wax dëgg yàlla mu xel moomu ne dañu ko jëbalaat euh, loolu moo waral tey ñu ñëw teew ci remise de drapeau bi ànd ak suñu grand frère yi ñu àndal ku mel ni Amadou Baba Gueye Fall donc ak suñu collaborateurs yi yëpp ndongo ñu ngi Ibra Sène Euh, euh, ñoom ñëpp ñi nga xam te ni aussi ñu ngi ànd di liggéey liggéey bu rafet bi ci le parti dëgg ma wóor bi nga xam te ni moom le directeur de l' emploi Pape jiite. voilà donc dañuy lancer appel rek donc euh, à tout le public diourbellois ñëpp ñi nga xam ne ay amateur lañ wala sax ñu nekk ay soppey Pape Modou nekk soppey dëgg ma wóor nekk soppey njaw ma kodd di soppey mbay ñaa wax dëgg yàlla ñu ñëw teew ci bis boobu. jàpp ci soutenir ñu soutenir aussi les promoteurs wax dëgg yàlla suñ frère bi Bassirou Mbacké donc ak collaborateur bi mu àndal euh, wax dëgg yàlla ñu fexe ba bis boobu daal lépp luñ ci séntu rek euh, ñu am ko ci muy réussite totale waaw di ñaan suñu boroom ñu egg ci dem ci bisimilah rahmaani rahim donc eggaleeg ci alhamdulilah rabil alamin donc ngir am ci satisfaction totale wax dëgg yàlla. donc di ci sant bu baax nag wax dëgg yàlla ki ma tudd léegi muy le directeur de l'emploi Pape Modou Fall ndax ñun bu ñu demee ba man ñu seen ci biir nit ñi tànn ñu dañu jox lu toll ne grand combat wax dëgg yàlla yàlla ak kooku moo tax ndax moom la ñu àndal di liggéey liggéey bu rafet moom aussi mu nekk suñu grand frère ñu soutenir ba lépp lu ñu engagé wu rek moom aussi da ciy dem ba jeex donc bu ñu amee fit tey taxaw jël ay grand combat yàlla ak kooku moo tax donc di ko remercier di ko ñaanal. projet yi nga xam ne yëpp entamé nañ ko à donc avec son grand frère le ministre Dame job donc ñu mën ci am ndam donc rawatina ci élection locale yi ñu jëm. donc euh, mu nekk ay élection yoo xam te ni wax dëgg yàlla candidat bi ñëpp xam nañ ne Dame Diop la moom la président de la république tabb ñun waa Diourbel aussi ñun moom lañ tabb donc bu def ko tête de liste ci euh, gëm nañ ne euh, ci dynamique bi ñu nekk mooy loolu moom féetee na côté ba pare waaw donc ñu ngi ci woo ñëpp ci làmb ji encore une fois. donc di wax ne samedi la 4 décembre bi ñu jëm au stade Elimanel Fall de Diourbel donc da ci woo ñëpp euh, ñu ñëw jàppale suñu jeune frère Ndiaw kodu Ndiaye di chef de centre MEF Diourbel fi ñu nekk nii di fi defee remise de drapeau bi nekk également le coordonnateur adjoint euh, nekk sama topp sama ginnaaw ci ci la jeunesse de dëgg ma wóor wax dëgg yàlla jiite aussi la jeunesse de Kër Cheikh au niveau du parti donc di ko ñaanal. di ko sant di ko gërëm ci wax dëgg yàlla honneur bi nga xamante ne teg na ko suñu loxo. yaakaar na ne kàddu yi macha allah rafet na waaye di fàttali nag drapo bi drapeau njaareem na ndax boo waxee Pape Modou Fall def am jóg boo waxee Pape moo Fall di njaw ma koddu te loolu mooy njaareem ndax seen liggéey bu rafet bu ñu def si diwaanu njaareem kon bala ñuy gën a sori rek dañuy jox ki nga xamante ne mooy njaw ma koddu di doomu njaareem nag nekkatul ku présenté waaye nag mu wax leen kan mooy njaw ma koddu fan la jaar njaw ma koddu lan mooy mëbëtam ak fii ñu ko fekk ban bërëb la ba pare mu dugg aussi si drapeau bi nga xamante ne nii moom lañ ko tuddee muy drapeau bu mag a mag ci dox euh, ci diggante ki nga xamante mooy Paul Maurice bu xojil ak ki nga xamante mooy Zarko bu Soweto kon njaw ma koddu dañ lay kàddu gi rek nga wax ak salaamaaleykum donc maa ngi nuyu mbokki euh, internautes yëpp donc yi seetaan bawal TV donc di nuyu aussi euh, ñi nga xamante ne ñoom laa nekkal ci plateau bi donc euh, jiital ci suma frère donc suma xarit le coordonnateur de la jeunesse donc en même temps cordinateur bi nga xamante ne mooy mission locale donc de Diourbel donc remercier aussi nuyu. Euh, ñi nga xamante ne ñoo nekke suma wàllum càmmoñ donc nekk les agents de la MEF mais pareillement aussi nekk les agents euh, fi nga xamante ne mooy mission locale donc ma lim ci remercier ci en même temps <coughs> euh, sama grand Baba Gueye Fall donc def déplacement moom aussi assister affaire yi ak sama grand Ndongo donc euh, nuyu aussi ki nga xamante ne mooy le grand promoteur euh, Basirou Mbacke am donc nekk euh, Diourbel production donc ci tànn gi nga xamante ne tànn nañ suñu personne bi donc def ñu parrain Euh, man aussi également ma jëlaat euh, parrain boobu noonu nga xamante ne nii euh, ànd bu rafet wala dëkk dëkkawaay bu rafet moo waral ma delloowaat ko ki nga xamante ne nii mooy suma grand suma xarit ci lépp nag muy ki nekk ci suma wàllum ndijoor di mbay ñaa donc di ko ci remercier aussi moom it mu nekk nit koo xamante parce que ànd rek moo waral loolu séntuwuñ ci lenn lu dul loolu donc di wax ne euh, le quatre décembre nekk na bis boo xamante ne bisu mbay ñaa la bisub njaw ma kodd la bisub maison de la femme la mais bisu Diourbel la bisub aussi le directeur de l'emploi la Pape Modou Fall parce que je vous rappelle que ne euh, donc drapeau bi tey moom la ñu defoon honneur bi tudde woon ko ko donc mu ne nañ ko def ci ci suñu tur euh, def ko ci turu ma Macodou man aussi pareillement euh, du ma nangu di def dara loo xamante ne euh, du ci jiital suma ay kilifa ci wàllum politique donc ci wàllum àndandoo donc maison de la femme fu ñu dégg Ndiaw dañ koy dégg donc dëgg moo wóor aussi fu ñu dégg njaw dañu koy dégg donc moo waral tey fu ñu fu ñu fu ñu fu ñu waxee njaaw ma kodd donc wax directeur wax euh, drapeau donc damay ne drapeau bi dama koy dama koy joxaat ki nga xamante ne mooy suma frère donc di euh, Mbaye Niang parce que amuñu loo xamante ne moo ko moo ko gën a rëy ci cadre politique voilà donc comme ni mu ko waxee aussi moom dañuy woo def appel ci ci ci ñëpp voilà képp kuy xaritu njaw wala képp kuy am di jàmm njaw wala képp kuy militant wala sympathisant wu dëgg moo wóor wala euh, parce que drapeau bi sax mën nañ ne jour journée boobu yëpp euh, ñëpp ñoo ànd voilà mun nañ wax loolu parce que boo xoolee Seydou Sow Abdoulahat wala nga xool yeneen yeneen euh, drapeau yi ñoo ñëpp ñoo ñoo ànd jour boobu bon Seydou Sow nee na ma avant ngeen di départ euh, man personnellement xam naa le matin dinaa jéem a ñëw foofu donc même bu fekkee ne aussi dañuy ànd aussi ñu jéem a ànd dem ci combat boobu kon cela veut dire que ne même même journée même même même personne yi la donc ay xarit bon ñoom ñoom lañ boole benn bis kon je pense que ne bis boobu dina alaa dawme voilà comme ni ko euh, sama gars yi nekk ci làmb bi di waxee dina alaa dawme parce que voilà fi ko tuddee ak ñi ko tuddee ñoom xamuñu lu ndaw parce que ku xool parti dëgg moo wóor je pense ni ñooñu xamuñu amuñu lu ndaw ñoom lu rëy rek la ñuy def xool aussi ci beneen kaadar bi aussi côté yooyu aussi ñoom it ràññee nañ leen ci wàll woowu donc je pense ni kon jour boobu dina nekk jour boo xamante ne nii bon lu ñuy waxaat lay doon lu ñuy waxaat lay doon donc tout simplement di ñaan yàlla suñu borom rek mu yóbbu ñu ci jàmm. Euh, ñu fekkee ko jàmm te tal ko te lépp loo xamante ne ñu ngi ko ciy séntu aussi donc ñu ñu ñu ñu ñu am ko ci donc ñu ñaan yàlla ñaari mbër yi ki nga xamante ne mooy Zarko ak Zarko ak Paul Maurice aussi yàlla defal leen jàmm ba jour ba parce que tamit euh, quoi qu'on puisse dire euh, combat bi ci ñoom lay dépendre parce que yàlla bu dogalee aussi euh, xat-xat seen diggante peut-être combat mën na bañ am mais ñaanal leen yàlla à que ñoom ñëpp ñu nekk en bonne santé ci jour boobu noonu ba mën a dérouler combat bi aussi ñaan yàlla aussi en même temps parce que bon la fois passée bi ñu tuddee sama benn xarit donc Pape bassiru Thioune donc estat Euh, la fois passée je pense que c'était le samedi donc bi ñu fa demee gis nañ ne làmb Jurbel je pense euh, nekk na li gën a li gën a li gën a am importance fii ci Jurbel parce que gis nañ ne donc ay kilifa boo demee marché ñi yor grossistes yi magasin yu mag yi ñoom le dimanche ñoom ñooy sangu ba set dem làmb ja affaire de mag la mais affaire de jeune la en même temps donc loolu aussi nañ ko ciy sooraale bu baax a baax donc ñu xool ñun ñi nga xamante ne peut-être ñun ñun lañu ñun la ñuy jéem a indi ci làmb ji ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci làmb ji ñooy ak acteuru làmb peut-être ñi nga xamante ne ñooy promoteurs yi wala ñi nga xamante ne ñoom ñoo fa nekk di mbër yi donc ñu jéem a def le tout ba benn violence genre lu ci am comme ni muy amee ci yeneen gox yi fii Jurbel jàmm lañ xam donc te gis nañ ne aussi am nañu ci intéressé wu ci làmb yi euh, muy muy muy public bu bu bu bu bu VIP donc je pense que ne foofu warul am benn benn benn euh, xeex wala xuloo violence warul am foofu donc ñu ñaan yàlla aussi loolu bañ a am ci ci làmb ji ñu dugg ci ak bisimilah rahmaani rahim génn ci ak alhamdulilah rabil aalamiina du ma jeexal nag sans autant me remercier ki nga xamante ne mooy suñu kilifa donc kooku. nga xamante ne lépp moom la moo nekk ci kaw Mbaye Niang moo nekk ci kaw Ndiaw moo nekk ci kaw MEF voilà moo nekk ci kaw Migrant FM nekk ci kaw Bawal Digital Fatlab nekk ci kaw magasin communautaire voilà nekk ci kaw euh, li nga xamante ne mooy changer xar kanub njaareem muy di defaraat jardin public yi fi nekk ak yeneen ak yeneen yoo xamante ne mun nañ ko lim bu ñuy lim duñu juum donc euh, bu ñuy lim dañuy juum donc di ko euh, ñu kooku muy moo du Fall nekk l'actuel directeur de l'emploi nekk le président du parti aussi bi nga xamante ne foofu la ñu bokk euh, donc dañu koy remercier parce que boo xoolee ñun ñi nekk fii ñëpp euh, xam na xamal xam ne suñu âge demewul noonu euh, suñu expérience it demewul noonu mais n'empêche il a pu nu nous donner des des des postes de responsabilité yoo xamante ne comme fi ngeen nekk nii muy maison de la femme entrepreneur donc man je suis le le le coordonnateur le chef donc kii à ma droite ñu delloowaat ko honneur bi aussi poste de te la ko jox parce que déjà en politique nga créer parti jël benn jeune def ko la coordonnateur national donc mu nekk sa wet foo jëm yóbbu ko loo xam wax ko donc jëlaat ay poste de responsable lu ci mel ni coordination euh, benn entité bu rëy rëy muy direction de l'emploi au niveau de Diourbel nga joxaat ko ko kon je pense que ne loolu luñ ko war a njukkale la donc parce que xeebul les jeunes xeebul le jeune boo xoolee aussi à ma ñi fi nekk ñëpp à à ma gauche aussi ñi fi nekk ñëpp ce sont des jeunes mag gisoo fi mag donc trente ans la ñuy yem wala trente ay et quelque ans donc je pense que ni loolu nit kooku ku jar njukkal la kuy jël ay poste de responsabilité di ko jox ay jeunes kooku war war nañ war nañ ko wax waaw góor te aussi euh, taxawaayam ci Diourbel je pense que kenn nattableetu ko donc loolu aussi bon balaa ma doon jeexal nee naa ñun dañ koy remercier di ko sant ñun jeunesse bi di ko wax ne ñun taxawaay bi ñu amoon au début taxawaay boobu la ñuy am wala bu ko gën a dëgër la ñuy am di ñaan yàlla suñu borom aussi moom mi nga xamante ne moom moo am moom mooy maye yàlla yàlla nañu ko yàlla suñu borom gën a taxawalal waaw gënu ko jox ay post de responsabilité ba ñun Diourbel parce que du ñu wax ñun suñu personne mais ñun Diourbel ñu gën ci gis suñu bopp voilà te xam nañ ne Diourbel bu ci gisee boppam donc euh, cela inclut que suñu ñun suñu personne dinañ ci gis suñu bopp donc dañuy remercier aussi Bawal Time bi nga xamante ne ñoo déplacé wu encore une fois di remercier euh, la la la structure euh, Diourbel production bi nga xamante ne ñoom ñoo tëgg làmb ji ñoom it aussi seppi la jeunesse ne leen ñoom lañ koy tuddee parce que mënoon nañ bu doon xaalis je pense que duñ ko tuddee waaw loolu loolu moom. du doon xaalis je pense que duñ ko tudde suñu suñu personne bii parce que je pense que ni dem tudde woon ko euh, Moustapha Gueye wala ñu tudde woon ko Sayed Diop wala keneen ak keneen ci lañ doon gën a ci lañ doon gën a am leneen donc mais bu ñu xoolee suñu personnes yi dem Seydou Sow dem Abdoulaye dem keneen ak keneen donc dem si Mbaye Niang dem si Ndiaw Ndiaye je pense que ni kon moom mooy honorer la jeunesse de Diourbel parce que tamit liggéey nañ fi loo xamante ne nii donc war nañu mën a tudde drapeau waaw laa moom je pense que ni ku ne xam na ko suñu taxawaay ci Diourbel je pense yaatu na muy man muy mbay voilà muy Seydou Sow muy keneen donc euh, loolu aussi dañ ci dañ leen ci sant ba ngeen xamee loolu ba def ko suñu honneur donc merci beaucoup encore une fois donc di remercier ñëpp di ñaan yàlla ñu yóbbu ñu yóbbu ci làmb ji ak jàmm ba ñu fekkee ko ñun ñëpp tal ko dem ci dem ci ak ak ak ak wax dëgg yàlla délégation bu rafet comme di ñuy xaar ci ñun. dëgg yàlla loolu moom je pense que ne dinañ ci dinañ ci dem ak délégation bu rafet di ci woo aussi suñu kilifa. le directeur de l'emploi Pape Modou parce que moom je pense que ne voilà lépp mooma moo validé aussi je pense que moom aussi euh, joxe woon na kàddoom que ne peut-être bu su fekkee ne am na temps incha allah dina ànd ak ñun gunge ñu ci ci làmb jooju parce que ñun moom rek la ñu am amuñu leneen lu ko lu ko sut donc voilà donc encore une fois di remercier ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp donc di remercier aussi sama sama sama grand sama xarit nga xamante ne moom wax dëgg yàlla euh, euh, diggante ak moom donc euh, kenn xaju ci te kenn du ci mas xaj man fu ma taxaw ci ci ci mbooloo donc dama koy wax chaque fois ma jëlee kàddu ci biir biiri mbooloo dama koy wax donc politique dafa doy waar mënoon na demee neneen entre ñun donc mais comme moom mooy coordonnateur bi man may adjoint en même temps ñu ñëwaat ci kër Cheikh donc ñun ñaar kenn ku ci nekk cër ba nga war a am ci directeur am nga ko kenn mënu koo xañ sa morom donc moo tax chaque jour may rafetal sama diggante ak moom moom it mu koy def sama diggante ak man yàlla xam na ne kenn mënta wax ci moom mii ci njaw ba mu dégg ko loolu moom j'en suis sûr te man mii kenn du ñëw mu ne ma mbay ñaa ba ma ba mu dégg ko loolu moom j'en parce que suñu diggante même bu ma nekkee à l'université su may activité personnel dama ko doon woo di ko ci laaj xalaatam muy déplacé wu di ñëw à l'université di ma seeti kon loolu lu yàgg la kon pour wax leen ne leen man lépp lu ma def tam dama ko war a def donc kii c'est un boo xamante ne nii du man rek maa ko jox cër ci njaareem ñi ko jox cër bari nañ donc parce que liggéeyam la ak comportement à travers les gens donc loolu aussi c'est à c'est à dire voilà c'est à confirmer donc loolu keneen bu jëloon kàddu fii da koy wax muy liggéeyukaayam muy njabootam famille am muy keneen ak keneen muy njaareem gépp donc moo tax man lépp lu may def séentuwuma ci moom dërëm séentuwuma ci moom dara man chaque fois lépp lu may def damay bëgg rek di ko woo ñu ñaar ñu di ko ànde ñu di taxawee ñuy nit ñi di xam ne ñun ñaar on est ensemble kon mënuñoo jaxase ci ñun ñaar ñu ñuy jug jug jug yëpp pour pam Modou Fall la foo ñu gis Pape Modou Fall ngay gis voilà donc di remercier dëgguma moo gépp seen taxawaay wax dëgg yàlla xeebuñu njaw xeebuñu mbay ñaan kàddu njaw ma ko dongoog li naan daraja jikko ju rafet moo koy joxe ak xel mu sell kon yaakaar na mënuñoo tuddee diwaanu njaareem drapeau ku la ëpp ndax lépp ci xel la te dégg naa aussi nga woote ci jàmm waaye fu ñuy wax Pape Modou Fall mënuñ faa séntu dul jàmm fu ñuy wax Dame Diop mënuñ faa séntu dul jàmm kon jàmm ak salaam rek la ñuy sént ci bis boobu ndax ay xale yu bëgg jàmm rek ñoo ko séq comme ni nga ko waxee nag drapeau Diourbel la drapeau jeunesse Diourbel la macha allah kàddu yi rafet na ci seede yi nga seede ci diggante ki nga xamante ne mooy Seydou saw donc xam naa ne bala ñuy gën a sori rek dañuy daal def lu photo de famille joxante rendez-vous le 4 incha allahu rabi incha allah ci plateau ba nañ ci yeggale yeneen waxtaan yoo xamante ne nii dana gën a xóot dana gën a yaatu jërë ngeen jëf.